moo lay wan ni tey lamb ji lamb guddi la sama doon nag tirmu la mbokk yi seetaan wasaare lamb ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii ci stade Iba Mar ki ñu fi woo di Diaks Wrestling production mu war ñu ci journée bu mag grand combat bi dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 bu Faas mi nga xamante ni moo doon Mbaye Gueye moo doon Maam Gorgui Ndiaye moo doon Moustapha Gueye moo war a laalee xale bi nga xam ne mooy Cobra Cobra doomu Pikine bi Cobra bi nga xamante ni roi des bi muy njëkk a dugg si ci Dakar wala ci banlieue Pikine la fekk mbaax Mouhamed Ndao Tyson moo ko fa dugal ama seen nekk fa mu doon ko doon ki nga xamante su mooy suñu papa Pape Diop Boxon xale boobu tey ñoo ñoo fas yéene laale mais lamb ji nag tey somi doon nag kirmu la bu ñu ko waxee xel day dem ci diggante Modou Lo bi Baye Mandione làmb guddi la woon sëñ Fallou Luc Nicolaï moo ko organisé woon tey fii ci stade bi dafa amoon handball bu fi am mais waral tey jag si pousse heure bi ba heure bi mu ñëw mais teewul amateur yi ngi ñëw Adama kii sama doom la waaw waaw Ibou bu Kër Mbaye Fall mooy xale bi nga xamante ne moo waree Kër Mbaye Fall bu jugee Kër Mbaye Fall dañu koy topp bu jugee xale Kër Mbaye Fall dañuy ànd ak moom guddee na waaye dugg si na ci stade bi de waaw waaw tey mbër yëpp samay doom lañ ku dugg ma ni sama dooma jëlal aadama sama doom la <laughs> sama fils ndaysaan moom it day bëre ndaysaan xale bi waa Ngoro ko indi waa Wakaama ko indi ndaysaan muy xale boo xamante ne xale bu bari mbooloo la tey làmb xale yaa ngi noonu di dugg si tey mbër bu ñëw sama doom la Adama tey ñëpp sama fils kii sama doom la sama doom la sama fils am na ci grand combat bi koo xam ne mu ngi ci bis bi koo àndal ah njool jamono njool jamono kuy njool jamono la nekk mu ngi ci sept combat six victoire benn défaite sept combats six victoire benn. waaw tey mooy tey mooy huitième combat ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam. waaal di ñaanal Serigne Ndiaye may ko waaw incha rabbi. ah mu ngi dugg mu ngi ñëw. ayta lii nag moo sama fils doom la. tey wax naa la booy yëpp samay booy lañ. noo tudd. waaw Dragon 1. Dragon waaw mooy bëre. Euh, Sabala 2 Modou Sabala. Sabala 2 waaw Modou Sabala waaw. Ah. waaw. combat booy bëre guddi gi ñu def ko doon de nocturne noo ko gise waa dañuy kontaan rek xëy na xëy na xëy na du coobare ni suñ coobare sax waaye comme amuñu stade wala stade bi boog moomuñu ko beneen stade bi am na ñu ne ñu fa nekkoon. kon li mën a dem mooy xaar rek. ban heure takk ngeem waaw 17h laa takk nag. 17h waaw. Ah. waaw. tey dina neex. waaye day tàng day neex. maay diriger man maay diriger. incha allah waaw waaw. porte bu nekk. promoteur bi da koo ubbi pour supporteurs yi gaaw dugg si. pour amateurs yi gaaw dugg si. pour ñi nga xamante ne dañoo safoo làmb gaaw dugg si kenn du traîner ci biti. moo tax gaaw na de. ubbi nañ bii ubbi nañ bële supporteurs yi ngi dugg fii ñu ngi duggee fële. ñu xool mbëri ba tey Adama porte bi fi la mbëri di dugg se boo xoolee saafara si tooy nga xam ne fii mooy porte mbëri xaaral na dañuy génn yoxosu mbartalu xool mbëri kan moo ñëw Père Xas koo indi ngóor ñaax ak ordinateur Père Xas koo indi ngóor ñaax ak ordinateur ngóor ñaax yi la ngóor a ngi nii ñaax a ngi Adama Jële <laughs> le grand champion kenn du ko présenté ci làmb Ngor Ñaax moom moom miin na bëre guddi moom bëre guddi moom buñ koy wax miin na ko miin nga ñëw nga ci loo ah, waaw c'est normal. waaw ah, nag waaw bëre door waaw. bi mooy sa na. na premier combat. bi mooy sa premier ah, xam nga ko. non ko nag. na xeex de. ah waaw loolu laa de mais dara. non dara. ah kon de ñëw nga ci loo miin. waaw gisal loolu. Zambal a ngi noonu. Za dugal maa ngi ñëw. Adama xoolal njool la mu takk ci loxo bi butéel la de xoolal décor yi mu laal xoolal la mu sex ci gémmiñ ga xoolal socc ba ka muy waxal nag bëgg naa xam kan waaye <laughs> doo ko mën a xam boo demee sëriñ si lay waxal bii amul jot di wax ak kenn duggeel tànk ndi jor booy dugg tari lii waxal lii butéel bi ma la jox dee ko laal loolay làmb ma ngay ree ndeysaan njool njool nuy naa la. waaw fay naa la. maa ngi yam sant yàlla bu baax. ay bis bi lu mu laaj. waaw bis bi de ndam rek incha allah. xam nga ko. kooku après lay comprendre. li sàkkal deux laay bëreel. sàkkal deux men. sàkkal mais am na peleñaa tey. am dama koy bëreeloo ba mu gàll. amaat kon day yomb. góob mu gaaw déedéet day yomb kon. wax ko say supporter. yàgg na. ngay cons. laay te dina daj lu métti. Ah. bari sëñ Bamba. ay jël jool maa lay xaar ci biir. jeex na maa ngi ñëw léegi léegi. waaw waaw. am àll bi ordinateur. ma nga noonu ndeysaan. xool ko. ordinateur ngi noonu di dugg si. ordinateur ngi noonu di dugg si Adama. ordinateur a ngi noonu di dugg ci moom it mu ngi ñëw ci compétition bi ndaysaan Jax daal ndaanaan yi mu boole ku ci nekk miin na ci li mu ñëw ku ci nekk ñëw miin na ci limu mu wuy si a ngi noonu léemu na ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu moom ordinateur tubli ci kanam gi ordi bis lu mu laaj waxut de ndeysaan làmb gi ordinateur borom dëkk bi moo dugg si noonu am na beneen mbër bu ñëw Adama am na beneen mbër buy ñëw. gis par benn benn mbër yee ngi ñëw par benn benn. Cobra. ki ah, kii grand combat bi la. Cobra bu piki na ngi noonu. xale bi nga xamante ni bu jugee mobilisation bu rëy dañuy déplacé wu Pikine ñëw xale bii sànq laa leen doon wax ni champion la ci làmb taay bi forme bi. état bi boo ko gisee muy dox di ñëw doo laajte kii lan la dangay xam ne mbër la moom Cobra muy bëreeg Serigne Ndiaye 2 mu gëj a bëre ci bëre dóor waaye li traditionnel bi mu ngi ci doon wane boppam di compétir ak ay moroomam di compétir ak ñi nga xamante ne ñoom la war a bëreel tey nag aa ah, du yomb gis naa tonnerre noonu ci wet ga tonnerre depuis bi nga amee ndam ba léegi gisuma la génnoo ci loo ne. waaye maa ngi nii nekkoon di jàppale suñu doomu ndey rek Cobra di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. Hmm, ndam neex na de. ndam loo ko jëndee jar na woo. Hmm. waaw. keroog bi nga bëree Thiès daan lan ban yëg-yëg nga njëkk am ak lan nga gën a yëg. waaw parce que man moom nag bu mag laa yàgg naa yëg yàgg yëg ay victoire. Hmm. victoire bi moom réy na si man réyul si man parce que fi ma teg sama bët du fii daal daa bëgg balaa bi jeex. maamaat euh, combat wane waat sama bopp. yan nga yaakaar war ngaa mën a laale. non man kay instant ku ñëw baax na booy génn nii sax ku ñëw baax na. Hmm. waaw ku ma yàlla boole rek pare naa. gis ni da war a may booy chance ñu ñëw. booy yeeg mag ñeeg ñëpp ku ñëw baax na. waaw. Hmm. waaw. da dugg parcelle. ba léegi wala da génn parcelle làmb sama 16 dama ko teg case ba laa ko teg. case ba. sama 16 case ba laa ko teg eh. waaw. kon ko sax pour génn parcelle. non maa maa nga teg parcelle. mais actuellement yan adversaire nga am parcelle. non bëri na. bëri na Fass am naa fa ay parcelle am naa fa ay adversaire ma daal pare naa pour mbër yëpp daal. jaajëf bu waaw ñoo ngi ko waajal waajal bu doy waar di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci bisam bii nii. Cobra ku baax la ku yaru la ku neex a gunge la. dañ koy ñaanal lekk li mu moo xam yàlla na ko yàlla defal. bëreeg Serigne Ndiaye 2 gisuñu open press am deful sorti nekk ci ruqam ba ñu bari naan est-ce que sax dina bëri loolu lan la yéen dafa nekkoon si ruqam rek di liggéey liggéey boo xamante ni daa laaj secret liggéey boo xamante ni daa laaj nëbbatu loolu kese woon mais du leneen. maa lay jaajëfal jaajëf Faye jàmbaar. sant yàlla bu baax. ñu ngeen waajalee Cobra indi ko tey. waaw sant yàlla julli si bi sant suñu waajur. waaw waaj nañ ko bu baax a baax. lépp ci war def nañ ko. physique na contact na def na musculation. takk na gaa def na lépp am na jom am na fit préparé nañ ko baax a baax am nañ 100 pour cent waaw. ci ban état de forme la nekk actuellement. waaw mooy li ma wax rek physique na contact na musculation na def na lépp waaw lépp lu war ci làmb ji def na ko waaw ku neex a tàggat la. dañu gis Cobra tey combat bi gisuñu ko benn yoon génnul def sorti open pressul deful dara mu nekk ci ruqam lan la bis bee toll foofu wala Cobra moo jël beneen yoon bu bu bokkut ak yoon bi mu jëloon. non Cobra bis du ko dépassé. mais lamb am na fu muy toll foo xam ne benn saa nii xam waaw amoo dara loo wax nit ñi da jëf nit ñi di gis quoi waaw comme foofu la toll dafa toll foo xam ne dafa war a a wane boppam dafa war a mën mbër boo ko gisee doo laaj ci ana mbër mi quoi te moom tamit yàlla dogal na qualité yi bëri fa fit bàyyi fa jom jaay fa xëy na nag benn saa nii xam nga waaw bëri fi ñàkk mu toogaat fi def ay année blanche wala affaire noonu quoi kon ça veut dire que Benny Sane am na lu koy xaar kon lu koy xaar moom xam na ko ñun xam nañ ko lu koy xaar rek Benny Sane da liggéey quoi waa wasaare a ñëw nekk. waaw ma du ma tudd fenn. mais lamb dama am ay mbokk am ay staff am ay instant bi boo ma xoolee xam ne Ama Baldé day entraîné normal li may entraîné mënu ma ko mësu ma ko entraîné sax su may préparé combat kon dama nekk si ay loxo Fallou Ndiaye jot na ma contacté am na ñoom jot a waxal mais yàlla dogal jubóowul woon ñoom quoi mais bu yàlla dogalee sama combat taxaw rek benn sànn incha allah rabbi nañu war a suñu bopp contre da ngay jël ci xale yi wala da ngay jël say nañ ma fay lu ma jaral rek ku ñëw baax na ku ñëw baax na kon nag bu ràmm nga nag yaa lay daw mais dawal na <laughs> boobu Kër Mbaye Fall lii du dëgg lii du dëgg xoolal xale bi wa ñii waa fan waa waa ñooñu nag waa Kër Mbaye Fall beneen kàddu dafa ñibbi ndax ay xale lañ barki Serigne Saliou dama leen a yërëm billaay wallaay moo amuñu woon ne làmb guddi la na sëñ Tuubaa mais mooy loolu damay régler situation bi léegi Ibrahima mun na Ibou yeewi askan wi. yow la ma leen di Ibou yeewi askan wi. Ibou yeewi askan wi. séeréer bi daa am lu mu wax. waaw mu ne la. on nana ngaa dig. waaw taxun. on nana dig. on taxun. o ga'a ngaa dig dig taxun. o anda ngaa dig dig taxun. après laa lay firi lan mooy loolu. loolu après laa lay firi lan mooy loolu. Eh, waaye yow waaye mbër maa ngi noonu. mbër nuyu naa la. fay naa jaamu kay. yaay daaru. yaay ba faama. waaw. xam mooy sa ñaata combat bëreetoo. septième combat. ñaata victoire. benn laa ma tere du rek dama koy may sens. Ah. mais si kanam dina dinaa ko leer. simple la ñëpp nee nañ a bëre. Ah, damay compétir simple bëre arène lañ nekk. Eh, damay compétir. waaw. Ah. a door nag leneen la. ragaluma loolu ci loolu laa yaroo. lépp dina am. bëgg oh. waaw. ma dem ci moom oh. daaru nee li nga jàngee bëre nu mu tudd ci séeréer. li nga jàngee bëre lu mu tudd ci séeréer. waaw. ayca kaay kaay man yónni man ngeen yónni mbay xoolal ma xoolal ma jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal gàncax fa maa ngoog doomu bidanti bee ngi noonu ndeysaan waaw waaw ma nga noonu ndeysaan Papa Gueye mu maa ngi noonu ci wet ga mbokk ndey koy jur ëppale ngi noonu mbokk ndey koy jur Moussa Diouma ngi noonu la grand champion moo indi partenaire mi ma jël léegi Moussa Diouma bëre naa ak ko Moussa Diouma ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu moom Moussa Diouma gaañoo nuyu naa la. jàkkaarloo Kébara nuyu naa la. naa la jiili. sant suñu borom wér. sa adversaire nee na ni nga jàngee bëre. nan la tudd ci séeréer. lan si. nan la ci séeréer. jàng bëre. ni nga jàngee bëre nan la tudd ci séeréer. ni ma jàngee bëre nan la tudd ci séeréer. non non a à suivre lay waaw. ngeen ñëw tey fas yéene compétir bëre moom ci bëre dóor ñëpp xamee nañ ci bëre simple bi tey lan nga indi. non non ci gars rek affaire moom comme yenn compétition laa ko jàppee. barke alquran karim man mii naa jéew man. mais bëre door leneen la. waaye bëre bëre la nag. bëre bu ma de lamb lamb la da nga ne lamb de lu ci kanam raw li boj maa ngi ñaan yàlla yàlla suñ borom may ma ndam ci kaw. nee na moom ñëpp àll bi yëpp xam nañ ne champion la daa mën a bëre daa a xeex macha allah. waaw loolu du ma ko weddi la ndax li tax may naan champion la champion bëri dañoo delloo sama avance moom mi assumé jël sama avance nangu naa ne la mais na xam ni. champion bu mag a mag la daje waaw. waaw Papa Gueye loolu mooy. waaw waaw yéen ñaareel laale. waaw waaw. waaw non mënul yomb waaw parce que combat neex la. mais tey wax ji daa nar a bëri waaw. te bëgguma mu bëri. tey bisu jëf la. waaw incha allah waaw tey dama bëgg ñëw jëf. incha allah. ay cëmbar ndeysaan ñaata maalaam buñ bokk dara. non da nga daan nuroo tellement boo taxawoon. mu ñaaw boobu non bi na la dàqoo ko yéen waa nice. di waaj rek. di waaj li laa andi. suma rakk la suma moo war a mën a nëbb parcelle. waaw ku nëbb moom dañ koy tuuri rek. incha tey bis bi lu mu la laaj. aja tous dara xalaat ñàkk la barki yàlla xanaa gi wax garaay dañu ma daree. waa Ngor ñii fa. toog di ma xaar. nee nañ ma jàpp ko jox ko bàyyi fa dëgër yi bisawaat Ngor. amul sax xalaat. ay doo ko bëre combat guddi bi. waaw waaw mais xam nga comme tam nañ ko ay mbapat quoi bu ñu daal bëree mbapat guddi moo tax tey mënu ñoo jaaxal. te boo gisee xeeru Ngor ay fëgg la père Ibou Diop wax gars yi taxaw moom xalaat ñàkk la. ça ma ko bëree dara ayca. looy wax koy waxal. Serigne Saliou Miracle lool. bu ngeen jotee. waaw dama bu baax. mais di santaan ñëpp di gërëmaat ñëpp. di santaan suñu liggéey yi. suñu liggéey yi bëggoon nañ ñu. waaw maam Serra Fall. loolu yëngu lool lool lool lool. barki sëñ mais di ñaanal suñu rakk bi ndam. ndax bu dee yàlla xol lay fay tey dina am ndam ndax borom xol bu rafet la. et puis gëm na lu muy def bëgg na lu muy def. di wax ne nag am naa combat le avril. benn boobu bu ñuy wax fils de Lirou. bu mën a xeex waaw a xeex bandi boobu waaw. yii tàngaay. di ko wax am na combat moom ngaa avril. ma woo Faris yëpp. doomu Lebu yëpp Tarkinda yëpp. Baye waa Kër Seydou Mourou Moussa Baye Fallé maa ngi woo ñëpp. yàlla may ñu ndam si noonu. mu ngay wër Adama Cobra ngi noonu moo war a bëreeg Serigne Ndiaye 2 mais mii ma gis tey fonk na bis bi de Cobra mii ma gis tey bis bi am na mu ko jaral de Cobra mi gis tey ànd naag waa Pikine de Cobra mii ma gis tey farataan na mystique ci bis bi de Cobra mii daal tey beneen Cobra laa gis. tey gis naa beneen Cobra Cobra ñu noonu ci digg góor moo rëbërëg Serigne Ndiaye de ndeysaan ñu naan ko Coriace kaay Cobra ñu noonu Adama ay sonde leer ma ngay tari dugal loxo ci suuf ndeysaan dugal loxo Cobra dugg si mbokk yi moment bi Cobra di dugg si il est vingt et une heures vingt huit minutes mu wane wane ni gën a gudd daa nar gën a guddee Adama Kaay. ngeen bëre wala di ngeen. xam naa ko xamul la moo ma war ñëw confirmé dem sama yoon du leneen. xeex wala bëre. li ma si am nga wax na na ma yàlla may ndam si kawam rek. nee na yaay choisir dem naa ci moom mu ne yaay choisir. waaw loolu waxu mbër la rek. waaye gëm bi bu ñu ko duggee amul choisir. loo bay sa mbokk am def loolu la ko. waaw Ada Fass ko ngemb ko gis naa Pape Ndoye ma nga noonu ci wet ba gis nga général ma nga noonu ci wet ba ndeysaan DJ ma nga noonu ci wet ba am na lu ñu koy moom Serigne Ndiaye benn morceau bu weex bu ñu def xaatim la Serigne am baa ngi noonu ndeysaan ànd ak moom am na lu mu ñoox ci suufu saako yi jéggi na ji doon tànk ndi joor bi. moom Serigne Ndiaye 2 ma nga noonu di dugg si Serigne Ndiaye ngi noonu di dugg si ma ngay doxali moom Serigne Ndiaye 2 moo Cobra Mbaxadu ju daje ci digg géew bi ñoom ñaar ñu ngi ci géew bi fa Serigne Ndiaye duggee la Cobra di sottee ko benn butéel ma ngay ñami ñami Cobra door na gauche ma ngay door gauche ma ngay door gauche moom Cobra nee na da koy rendi Cobra nee na da koy rendi Serigne Diakha ngi noonu di ñëw danaan waaw waaw waaw waaw ma nga sol benn bu weex moom Koreas ndaysaan Serigne Ndiaye doo ngi noonu ma nga bi Cobra ngi ci géew bi mbaa duñu daje ñoom ñaar mbaa duñu daje ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi koy takkaay bari na ci Serigne Ndiaye ndeysaan ñu ngi ko dóoral benn ngeer di ko diri ma cay dox moom Koreas ndeysaan ma ngay daw Serigne ngay daw ma ngay wër bi ma ngay wër géew bi Serigne Ndiaye ngay wër bi ma ngay way ma ngay bàkku waaw dugg si Serigne ngi noonu sama